léegi bi ma noppee ci Masaalikul Jinaan sëñ Abdou Lahad moo ñëw ba Louga ne ma daal juróomi yi daal bu xam naa ne amuloo moomuloo sa bopp daal liggéey kuy jàngale doo am jot waaye de dana nekk liggéey bu ñu nangu ma ne ko daan mu mu dima mun ñu ñëw gannaaw Masaalikul Jinaan bi mu ne ma نهج قضاء الحاج مواهب القدوس منور الصدور مغالق النيران الجوهر النفيس الجوهر النفيس mun nga yooyu day boo ma ko mënoon a traduire lool dana nekk fii géej bi ñu nangu masal bii di waxoon na nga ko si ba daal gis ne gis nga jublu gi rek moo am solo ndax moom li mu ci jublu woon nit ñi sëñ bi bi koy bind pour ko ko xam a taxoon te nit ñi daanaka jàngatuñu arab lu bari ñi jàng français gën a bari daanaka réew mi ñëpp jàng nañ ko bari na si ñoo xam ne dañ koo liir dem jébbalu ji nga xam ne loolu moom xalaatoon na ko ab tubaab sax ñaan na ko ko lu mu ci mu jox ko ministre yëpp layoom ñoom yey leen wan leen ne sëñ Touba wane naa ko kat feeñ bu kenn ne umpale na ko mu mu wax bul na jànguma arab xaw ma li sëñ Tuubaa wax bind nañ ko ci ci tubaab loola sëñ Tuubaa ko wax yonent bi sallallahu alayhi ji doon bëgg te xamul dara ci alxuraan du arab santaane na ay verset yoo xam ne dañ ko traduire ci seen langue langue yahud jàng ko moo tax gis nga li am solo dëgg-dëgg mooy jublu gi man tashabaha ko qawmin fahuwa minhum ku niru niru lu ay nit gis nga tubaab yi bopp niru niru lu ko bon moom ak bon lay indi naka niru niru lu ko baax ni mu mën a indi ak baax ak ak texe ci nit ki noonu la toppaloo ku bon mel ku bañ yonent bi sallallahu alayhi ku koy niru niru da ngaa koo te sopp ku bañ bi moom gravité mënu koo weesu waxuma la bañ gi ñu bañ yonent bi jógee ci bañ gi ñu bañ sëñ tubaab ba fi ñu ko jaar lañu def lépp xam nga ne loolu ku ko niru nirulu mel na ne sot nga ñooñu bañ gi nag ci xol la nekk xam nga ulama yi werante nañ neen yu xaraf soosu suñu borom a ko wàcce xaraf xaraf mm-hmm. kon lang yi gën a bari mm-hmm. suñu borom wàccee na ci ay téere yonent bi nga xam ne moom la yónni lan mu muy làkke rek ci la téere ba wàcc mm-hmm. siriyaat te euh, loxo bi gannaaw arab ak arab na xam nga yonent yi ñeent rek waaw waaw mooy siriyaan euh, ñeent rek ci yonent ñoo ci arab ñu ci ñëpp ay xeeti yeneen lañu ay yahut ak yi rek te alquran dafa ne minhum man qassasnaa alayka minhum man lam naqsus alayka yëpp kat nekk li ma leen leen am na ci ñu ma la waxal seen mbir am na ci yoo xam ne waxuma la ca dara mm. ba am na ñuy xalaat naan xëy na budaa sax ñu xam ñu yonent la woon wala déet ñu déformé ay mbiram ni ñu déformé yonent yi mbiri yonent yi ci desoon ba nga xam ne bu ko alquran wax loolu duñ xam ne sax yonent lañu wala duñ xam ci ñoom dara xam ne kon bu sallallahu alayhi wa sallam ne man fahima lughata qawmin aw kama qaala amina sharrahum daanaka digle na kon digle na ñu jàng boo seetee alxunitu li taay bi tariq la Cheikh Abdul Qadir Jilani moom bokk na si ñu ne xaraf sosuwul xaraf qadim la ndax suñu borom ba ko wàccee te langue boo euh, linguiste yi boo jàngee linguistique générale dañ lay wan ne ñoom ay possibilité maanaam li nga mën a wax ay arab ay ay xaraf maanaam ay possibilité lañ ko tuddee juróom fukki possibilité moo am ci langue ci ak lii yëpp juróom fukk am na si yoo xam ne arab dong nga ko am comme ba boobu ba ak wa yooyu daanaka am na ci langue yu bari yoo xam ne am nañu benn possibilité wala ñaar boo xam ne ñoom rek ko am waaye bariwul. Hmm. arab yi ñoo ko ci xaw a ëppale daal. waaye daanaka langue bu ne am na hmm, possibilité yi ñu bokk yoo xam ne ndax bu fekkee ne cinquante rek am juróom fukk. te langue yi ci àdduna kenn xamul nu bari na trop. Hmm. ak yi ñu xamul yi ñu xamul yi ñuy bind ak yi ñu dul bind. defe naa Tantawi ci shara alxuraanam boobu doon na ko lim. ndax dafay lim li français yi li ñuy làkk yi ñuy làkk li kii anglais yilif ki yi làkk li italien yilif li mam li hollandais yilif li belge yilif ba waye lu yag yag mënu ko matal mënu ko dajal ndax am na rok rokan ak yenati wax yo xamne euh du ko xam du ko xam waaye làkk yooyu yëpp suñu borom deg na ko malaka mi tok lo wax mu bind ko deg na ko ndax lo wax bu de lo rafet bu de lu ñam mu bind na ko kon xam nga ni xam na li nga wax de <laughs> kon dégg na langue boobu kiraaman kaati bi waaw euh, mu ne euh, niru niru leen euh, maanaam gannaaw bi mu waxee. mi ngeen toll. waaw faj mi faj mi faj mi waaw faj mi mbirum faj moomu. Mhm. Mhm. ci ah, moom yàlla eh, may na ko ci moom jàngoro joo fi indi bu neex yàlla yàlla dana ko fa saafara te ñi nga xamante ne ñoo bokk ci moom ci moom itam mm-hmm. képp ku ku ku demee ci moom yi mm-hmm. moom eh, eh, ñaan faj incha allah te mm-hmm. saafara si mu si fay wala day ak nee na mi ko xoolee am nañ xadis yu wér yoo xam ne fatiha ak kitaab shifa min kulli daa xadis yoo xam ne ay saxaabi yu ñoo faj ku feebar ci fatiha rek bañ jox leen ab carte bi ñu ko indee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa lu leen xamal ne sama wàll ana lu leen xamal ne fatiha saafara man naa ci alquran d'accord ci ñaan lu mel ne mag sama a yooyu yëpp itam d'accord naa ci bu baax ci technologie dafa nit ñi bëriwul nit ñi ko ñi ko ñi ci àgg ba mën ko moodul bari mën ngaa feebar di wër ba far dee te doo gis ki yàlla may loolu ndax ay benn benn la ñuy doon te mën na làqu lim nañ fi <laughs> d'accord nga ci loolu fekkee ne gis nga leneen lu lay faj te du sobe du lu ñu tere nga bañ a faju budul ko am kës koo xam daf ko wóor ne moom àppan mag la kooku mu sañ na bañ a faju budul koo xam ne rek eh, daf koo teg ci ñàkk xam rek la sikki sàkk wuñ ne moom yàlla may na ñoo xam ne am na ñoo xam ne boo leen waxee sa feebar ñu dégg ko ci nopp rek soxla wu ñu ñaanal mu daal di wér daa man gis naa nit koo xam ne noonu la mel bu feebar rek ak soxla dafa ne man soxla doomu aadama lu ma ñaan na ko wax rek ma dégg ko ci sama nopp man xam naa nit kooka kon loolu nga wax na amul fit kañ waaye nag boo feebaree di wér ku mel noonu ci kaw loolu noonu noonu nga wax noonu waaw man àggal waaw waaw di ko waxtaane maanaam par juróomi téeméer waaw am na li mu wax ci marché yëpp am na ñu ko ba ma ko yëguñ ko dégguñu. tey la ba mu nga man mii ma ko loolu tey. dama laa xamal ne naa ci loolu. waaye dama ne yàlla dafa yaa. Mm-hmm. feebar yi yaa. Mm-hmm. yàlla dafa may dafa may jullit may yéefar. Mm-hmm. sëñ Mourtala bu bëggee dem la muy def. <laughs> dégg nga sëñ bañ ko yóbboo Gabon lu mu duggoon bato ko yàlla mayee mu war a dellu si ba di ñëw bu ma nee naawit naawul mën na ko waaye naawul lu lu ko indi pexe tubaab bi ñi ko fi jëloon maanaam ci lu ñu liggéey lu tubaab bi liggéey la gis nga xam yàlla dugg moo am solo ndax dangay ngay xam ne bismillah li li daga li loolu mooy moom lii ko njëkkee tubaab yi ñoo ñoo téere arab yi njëkk mool yëpp tubaab yee ko mool sëñ tubaab daf ko daan yër ko daan yër gis xam nga lu bona hmm. nit ki bañ yonent bi nga nga bëgg ko ngir bëgg ko moom ci boppam wala nga roy ko loolu moo bon waaye adduna daf ci am yoo xam ne nit ki mënu koo bàyyi yàllaa yàllaa ko doxale noonu moo ko defee noonu kenn mënu ci dara dara dara yàllaa ko defee noonu. Hmm, ndax loolu ngay wax noonu. Hmm, hmm. bañu ko. lu demee ni lu demee ni lu demee ni. li muy wax ak li demee ah, eh, eh, ma la wax ne la. waaw <laughs> intention bi maanaam yéene jigéen yéene li la tax di def. waaw léegi ci ci ci misaal. fi bëri na lu lu am lu bëree bëri ci ci moom tubaab lépp lu yàlla tere mm-hmm. wala ñu sib ko mm-hmm. jegewu ko laalu ko bëgg ko mm-hmm. lépp lu lislaam daganal du ko araamal mokk moom ci boppam nag daana teg boppam yoo xam ne ngir digganteem ak boroomam wala tiis yi ñëw yoo xam ne yi dafa bëgg dal ci doom aadama yi mu am yërmande ndey moom ci boppam laaloo ko mu dal ci kawam mu di ay coono ak i musiba ak i metit yoo xam ne daf koy yenul jaam ñi daana fekkit loo xam ne xam na ne dagan na sañ na koo jëfandikoo bi sa koo xam ne xam na ko xam koo xam ne bëgg na ko bëgg goo xam ne xaritoo naag moom xaritoo goo xam ne yonent bi du daganal dara mu araamal ko te fu mu toll tànkam bu ko yëkkatee mun ko fas yéene teg ci tànku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam adduna nag day dox mu mm-hmm. mm-hmm. sëñ bay jaxate nee na mm-hmm. adduna day warangiku jamono day warangiku ku toog ci luy warangiku loo bañ bañit warangiku warangiku <laughs> dégg nga am nañu suñuy maamaat yoo xam ne bato boobu sëñ Tuubaa dugg mosuñu ci dugg lu tax jamono soppiku ko <laughs> ba indi loolu kon gis xam yàlla mooy xam jamono lu ñu ko afdalul ilmi ilmul xaali xam li li mën a nekk xàmmee li ci aay xàmmee li ci aayul mooy waaye mm. fekkoon da ngeen toog ngeen jàkkaarloo muy wax ngay wax mm. Mm. yoo xamante ni ngeen ànd waaw ah. ma wax léegi rek moom daal lépp loo ci xam ne lii lu dagan ànd yàlla may ne diw mën na nangam yàlla may na ko nangam ànd naa ca ànd naa ci it nit ki def na ko ngir ñàkk pexe bu ñu ko bañ a def kon dagan na ci moom ànd naa ca ànd naa it ci niru nirulu ko bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ Sëñ Tuubaa bañ gaa ñu baax ñëpp niru nirulu ko yonent bi ko foofu kooka moom man ci sama bopp xeeb naa ko dégg mu ku ne nag nañ bàyyi lépp lu fi tubaab bi indi ma ne la ànduma ci yow. moom dama ne leen ku ma ci yemoo it foo xam ne mën naa ko wees suñu borom may na ma maanaam dagana la ne ma weesu koy du ma ca d'accord dama koy weesu xam naa ne daal danay toll jamono moom day wëlbatiku te dañu ne tahdusu linnaasi aqdiyatun wa ahkaamun bi qadri ma ahdasu min al-fujuur nit ko lañ sëñ tubaab daf ko daan jëfandikoo tubaab yee koy liggéey dégg bateau yii tubaab yi koy liggéey dugg na ci yére yii tubaab yi dañ koy liggéey lii lim na ko sax. dama lay xamal ne rek waaw dama lépp lu aayul rek aayul. Hmm. booy boof muy fee booy booy fee waaye lu xas ba aay rek aay na lii bon daal ci tubaab bi. dëgg hmm. ko. Hmm. roy ko. ci loo xam ne lii lislaam bañ na ko ndax dégg naa sax sëñ Tuubaa daan wax ne ndax xam lépp lu dul mooy yàlla jar nañ caa toppatoo moo di fonk kilifa ca la. foofu mm-hmm. fonk wax. Mm-hmm. dégg nga yu bari dégg nga euh, wolof dañuy roy tubaab bi la ca am solo duñ ko roy. Mm-hmm. ba ma la waxante yow ne la bu subaa dix heures rek garib bi rek sàngam. toog neuf heures euh, onze heures nga may gis wala ñaaw euh, ñaaw wolof la taxul wolof yëpp bon. taxul luy wolof bon. dégg nga dama yàqee sa alal. war laa fay damay dal di d'accord ni war naa laa fay waaye nekk fa di discuter dama déedéet yaa ko def yaa def nii yaa ko def te dara du ci dëgg kooku ku ko xeet nekk ayib a nga dugg na ci gis nga tëral li yoon boo xam ne dañ ci àtti nit ñëpp l'islam moom lañ njëkk def kon loolu moom pour bañ tooñ la ku tooñ ñu teg la la sa war gis nga dafa bari yoo xam ne melaw doomu aadama la mbirum doomu aadama benn doomu aadama mënu la dikk ci àdduna bàyyi ko bañ caa jaar mënu la ñàkk ndax yàlla moo doxale noonu bi nga xamee ne dafa def suñu dund mu tappale ko suuf si yeew ko ci suuf si diggante suuf asamaan li ñuy lekk lépp ci suuf si lay génne li ñuy naan ci suuf si lay génne dégg nga <clears throat> li fajee bu ñu feebaree ci suuf si lay génne benn mu di ñax bu ñu liggéey wala mu di luy dund mu dindi la ca moom la cay faje wala ñu génnee ko ci aw doj bu mu mën ndox mi ñuy naan ñam gi ñuy lekk li ñuy nooy ci jaww ji la julli gi ñuy julli ak koor gi noonu koy xamee ci jant bi te ci adduna la nekk ak ci weer wi bu ñu suñu boroom dafa noo def lu jóge ci suuf dañ leen bind ci suuf te suñu yaram yi ñu bind ci suuf du jóg ci suuf bu dee fi lañ koy suul dinga ba mu seey euh, kon suuf si doomu aadama yi ci nekk dañuy jàng nañuy dunde ci suuf si ki ko jàng nag ba xam ko bu indee njariñ li dañu ne yonente bi sa alayhi wasallam ko wax xudil xikmata min ayyi ina in xarajat bu ñëwee ak fu mu mën a jóge rek jël ko moom la limaam alxasaali di lee bu naan borom xel mu mi bu fekkee bu fekkoon lem ñu def ko ci kaasu wantus bi daf naan deret la du dañ koy xañ lem nga du ko naan bu ca mos mm-hmm. ndax gis na rek kaas bi niroo kaasu wantus nga xam ne dañ ciy def deret wantus qualifié yooyu nga xam ne day am day deret ji day génn bu gisee weer bi mel noonu rek kon ah, mooy kon ni yonent bi sax wax ne xusul ika xikmata min ay inaan xarajat kooku moom bokkatu ca hmm. bu tubaab bi waxee dëgg it wàcc dëgg kooku du ko nangu ndax tubaab bi bon na hmm. bon na waaye li mu wax dëgg la ngay seet hmm. ndax dëgg la wala du dëgg dëgg yàllaa ko moom dëgg moom tubaab bi moomu ko wolof bi ko séeréer bi moomu ko bambara beeg saraxule beeg joolaa bi kenn moomu ko ci yàlla ko moom bu fekkee ne ki ko wax mu moo yées ci adduna yi li mu wax ngay seet ndax dëgg la wala du dëgg ku baax bu fekkee ne dafa juum bu baax la dul noonu boo xamee ne dafa juum ndax ku dul yàlla da nga juum yonante yi dañuy juum wàllu yi di juum kuntul xaw si di juum ku dul yàlla rek da di juum ñu ñëpp di fàtte nga xam ne xel lii njuumte la léegi li nga jëf budul karaama dugg ca ndax bu dee diggante sëriñ ak taalibe sëriñ boo xam ne mat na sëriñ àgg na mm-hmm. moom njuumteem sax moo ëpp njëriñ ci yow sa dëgg gi li nga def te moo teg ko fu wóor moom la mu juum ba sant la ko boo ko defee moo gën ci yow la nga xam ne lii mooy dëgg nga def ko boobu kaa moom bu ñuy teg fa la kooku mbirum tërbiya la ak tarqiya mm-hmm. waaye buñ ne la bàq bi tooyul boo ko jiyee sa gerte day nëpp sa dugub day nëpp fekk na mu la ko waxee dëgg la yéefar bi wax la ko jullit bi ne la tooy na jël boo jeey tar xam nga kàlla laajoon nañ la lu mel noonu ci sëñ waaye fi mu ne dama sonn na sonn na sonn ba dama ne woon bu ngeen ñëwee sax du ma toog moo moo tere jàngale tubaab wala jàng terew ko oh, maanaam sëñ bi tere na jàng tubaab wala terew ko kon mbokk yi ngeen jéggal ma tàgguleen dem ci yeneen